ñu ngi nuyu itam monsieur le maire de la commune de Kër Massar di nuyu l'ensemble de la dynamique communautaire bu may nuyu nag la dynamique communautaire dama ciy taxaw ndax ndaje bi bu ci communauté bi bokkul woon man duma ci am walla c'est un travail que nous faisons depuis plus de quatre ans ñuy laaj lan moo tax xamuñu ay IBP bu fekkee ni depuis quatre wala cinq ans ñu yëngu ci lu jëm ci inondation loolu li ko waral mooy sunu mécanisme d'intervention li ñu tax a jóg mooy ñi nga xamante ne lim nañ leen léegi am na lu bari loo xam ni dañ koy laaj état waaye bu ñu demee ci lu jëm ci inondation ak assainissement am na ci lu bari loo xam ni ci ñun askan wi la war a jóge moo tax ñu naan li nga xamante ne ñun dañ ko woote bu ñu ci kenn jiitu monsieur le ministre et l'ensemble des autorités avec lesquelles vous êtes il y a trois ans nous avons fait ça à Pikine à l'arène nationale waa Pikine ne ma lan moo tax nga waay Géejawaay bàyyi Kër masaar bàyyi Rufisque Il y a deux ans, nous avons fait ça à Guédiawaye, à Wakhenan Nimzat, toujours en présence du DG de l'ONAS. daaw yàlla dafa def ni mënuñu ko woon def cette année ñu am nag bonus ndax ku am DG am ministre am les autorités déconcentrées am les directions du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement mais nuyu wale sunu xarit Omar seen mi nga xamante ne mu ngi yombal liggéey bi lool moom ak ñoom lamin Diouk ak ñoomi Julien Sagna day am solo ñu lim leen ndax ñun communauté yi mën nañoo foog nii lu bëri li nga xamante ne état da ko war a def defu ko am na ñoo xamante ne ñu ngi jéem amaana nag dina sooxee te loolu la ñuy waxtaanee tey waaye damay ñaax ñëpp di leen ñaan rek ay kilifa yu bàyyi seen i itte ñëw fekk si ñu ñun délégué de quartier journaliste bàjjenu gox association de jeunes. ñi ma lim yëpp ñi ci gën a bëri nag ñu ngi liggéey ak ñoom dégg naa volontaires yi jotaguñu jot suñu appui bàjjenu gox yi itam dégg naa jàppale leen ak ñeneen ak communicateurs yi loolu daañ ci dellu si incha allah waaye may dalal xelu ñëpp ñi rek li ñu tax a jóg c'est d'avoir une dynamique citoyenne forte et constructive li am solo mooy li nga xamante ne xam nañ ko ci assainissement ak inondation ci njëkk ak teranga ñu diisoo ceeg ñi nga xamante ne ñoom lañ ko dénk bu ñu defee loolu ba noppi jébbal leen seen i recommandation te am naa yaakaar monsieur le ministre ni mu fi teewee tey am na yaakaar DG ONAS ni mu fi teewee tey am naa yaakaar tamit ci li ma xam ci ñoom ni bu leen jébbalee loolu seen kéemtalaay kàttan danañ ko cee def kon may ñaax ñëpp rek ñu xoolee ko noonu gisee ko noonu di delloo njukkal nag ñi nga xamante ne ñoom lay liggéeyal au quotidien nos collaborateurs waaye le cercle des journalistes en assainissement la fédération sénégalaise des habitants ñoomin Astou Meng ñoomin Aïssata Talla ñoomin Fatmata Bousso euh, di nuyu itam sama papa délégué de quartier yi nga xamante ne mënoon nañ téye seeni kurus ne ñoom wàccoo nañ ak askan wi ñoomin euh, président Diallo ñoomin délégué Fall ñoom délégué ñaa ku lim Dioum waaye tamit di euh, nuyu bu baax a baax a baax a baax ñëpp ñi nga xamante ne fexe nañ rek ba jàppale ñu ba journée bi am. ndax mobilisation bi monsieur le ministre foofu laay daanale dañ ko obligé arrêté demoon nañ ba am 1000 personnes ñu ne ñu il faut ajouter 200 chaises ñu yokk ko ñu ne ñu il faut encore ajouter des chaises ma ne leen ah la sécurité aussi c'est une priorité ñuy ñaan yàlla mu may ñu ñu fekkee waat lii ay ati at te déwén incha allah bu ñu dajee dajewaatee xam naa ne Rufisque ñëpp mën a tàccu le ministre Cheikh Tidiane Dièye ak le DG de l'ONAS ak seeni naataango parce que ce qu'on a dit ici, ça aura donné des résultats. Assalamu alaikum wa rahmatullah.